la fa fa doon taw ay milliards ah, yaw seetal junney milliards moom la leen dig fañ ko fas yéene dugal nag milliards yooyu mooy melokaanu xarxanamu kawlax ndàngaan soppi ko wàllu kaaraange wàllu njàng ma ak njàngale ma ndawu kawlax ya ngir ñu am ay xëy ak yeneen ak yeneen bés bi yéene kaay na njiitira Macky Sall kay fa dóor démb xolu kawlax ndax lam leen dig fa bëri ci ay milliards vox populi ne junney milliards moom la fas yéene suqalee kawlax moom njiit réew mi si du quotidien yooyu fa leen koo dig de jotaguñ ci ci ay yu bari nag fa ko bëgg dugal ngir suqali naqari diwaan ba léeg si ko yéen e kaay na ko fafaa doxee tamit waar étudiants yi ba pare dig leen ay milliards ñoom askanu Kaolack info yéen kaay na ko ni démb tamit njiitëra Macky Sall fa daloo inauguré maison de la jeunesse kër goo xam ne ndaw ñaa ko moom bu bees tàq guléet ci réewum Sénégal Kaolack daloo ko ci teewaayu jëwriñ ji ñu dénk wàllu ndaw ñi Pape Malick Ndour bi nga xam ne moo tabax li ni mel l'observateur na ko wax nga dëgg maison de la jeunesse boobu Pape Kaolack ndàngaar fa ñoo bëgg soppi xar-xaramu Kaolack koom-koom ba ba mu nekk lu mucc ay vox populi ne waaye bi mu wàccee ci aérodrome bu ba fa dem visiter ji chantier liggéey ba nekk ci université Sine Saloum Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne mbadaxul la ne ba mu fa yeggee nag fa wax étudiants na leen lii presque noppi na fii ñetti weer fañ koy daloo bés bu ñu ko ubbee nag faa bëgg ngeen bàyyi ay geraw góorgóorlu jàng ñu tàggat leen moo gën ci yéen l'évidence yéen a kaay ne mu demee ba yéeteet njiital CROUS professeur Ousseynou Diop fa lalal njiitaram Macky Sall tapis seetal seetal professeur Ousseynou Diop fa xamal mobilisation boo xam ne foo ko natt weesu na ko mbooloo ma fa bari bay tuuru fa mobiliser département bi faa jëlale commune bu Sibassor bi nga xam ne mooy maire ba mag ndaw fu nekk lañ bàyyeekoo mbooloo mu bari fanweeru biis ak ñeent fukki kaar ak juróom benn docteur Ousseynou Diop fa ko mobiliser teertu njiitira Macky Sall si suba gi ca Mbadakhoune professeur Ousseynou Diop moo fa jël pae ba tey l'évidence yéen ne waaye nag ci ngoon moo fa jël pae mbooloo moom génnee fa ngay foog ne yàlla ji fay doon taw ay ña ndaw ña t-shirt ya xartum ya fa fees dell ba tax yéen a kaay bi ne Mouhamed Ndiaye Rahma waneeti na dooleem ca teerum njiitëram Macky Sall démb te fa taxaw ba xaar njiitëram Macky ñëw mu ànd ak moom gunge ko ak mbooloom ci jamono joo xam ne gaa yëpp fa demoon ndax fa guddi woon révélation yéen a kaay na ko waaye maire bu Kaolack Serigne Boub ca conseil présidentiel ba fa faa jël kàddu jooy mbooleem jafe-jafe ya askanu Kaolack di dund fa ko wax <laughs> li leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na APR fa ñuy song di attaqué seen candidat bi Amadou Ba Benno Bokk Yaakaar ba tax enquête yéen kaay ne man daal faa xamul waa APR yi ñoom lan la ñuy suyee laa xamul ci luñ nekk yow am am mbër ba pare naan kii bu demee élection fañ ko nar a gañe ñële di ko attaqué naan Amadou Ba du waaja mais loolu baaxul si ñoom li baax ci kujje gi opposition bi moo ñu fexe am benn candidat boole seen doole li ni mel mooy gis a kaay ñu joxe dogalu àtteem lépp ci mbiru usmaan Sonko yi ñu ne déetewaay doxub ñaxtu ñu fas yéene ko amal suba ci àjjuma ji ba tax Walf Fadjri yéene kaay na njiitiram Macky Sall gaay fañ ko sëkkatal de Vox Populi na juróom-ñett fukk ak ñeent ci ay kilifa yoo xam ne ci réew mi ñii ay politiciens leen ñii société civile lañ bokk ñii ay homme d'affaires leen ñoom ñooñu nag fa ñoo dajaloo ngir xeex ñàkk démocratie gi am ci réew mi ëtt attekaay yoon tëddee njaaxaanaay loolu lañ bëgg turbine yéene kaay na 17 novembre bii daal suba ci àjjuma ji bés bu mag la bu am solo ci Ousmane Sonko yow seetal ci la ko Cour suprême di attee ci la ko sédda yaawo di attee source ay yéen a na leen voilà Ousmane Sonko moom ngeen di wax nag faa leen di wax ne wàllu wér-gu-yaramam fi mu ni mi ngi tane maanaam sant yàlla ñu ne déete waay yéen a kaay bi fa séq waxtaan ak Fadel Baro la ko naqare ak i dëggam wax na ko ci yéen a kaay ba la mu ñu wax moom vox populi mooy ne évêque yu Sénégal yi jàngu bi chrétiens yi seen kilifa yi fa ñuy sàkku ñu amal wotey jàmm ak salaam bu xel ne wote yàgg naa am Sénégal te 2024 it fay weesu te réewum Sénégal fay leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne préfet Ndakaaru bu bees bii yéetéet fa ñàkk caaxaan ba mu ëpp mboolem ordre buñ ko jox fu koy jëfee amul sax lu muy maslaha bés bi yéene kaay moo xëy di ñu xamal ak préfet bu Ndakaaru bu bees bi ab shérif la nag shérif Mouhamadou Blindé Ndiaye moom la tudd àjjuma bii nag ni ki suba mooy nekk dossier bu njëkk de ñi ngi bëgg a amal ñaxtu ñi leen fa ñuy dem jàppale Ousmane Sonko ca atte ba loolu yëpp fa ko war a lijjanti ci fàttali yéene kaay bi ne moom préfet bu Ndakaaru bu bees bii nag camarade de promo di laajte milliards yu du xaaj du jeex yi nga xam ne fañ koy dugal ci wàllu santé wér gi yaram ana milliards yor ngir yàlla fan lañ koy dugal yow milliards yu xaaj jeex te wàllu santé wér gi yaram tey la problème yi gën a bëri hôpitalu Sénégal yi tey lañ gën a feebar ay jumtuwaay tey lañ ko gën a ñàkk fa am sax yenn yoo ne fañ koy war di fay fay tardé nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu santé ma nga ca biir yéene ba leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne oustaz Omar Sall takk deree fañ koo teg loxo ma nga gardaaw yi tey ci alxamis di lañ koy defeere ca parquet ba libération moo ñu ko xamal vox populi ne faa leen di wax lan moo tax ñu jàpp oustaz Omar Sall yaw seetal fa ñoo wax ne fa yëkkati kàddu yi ñaaw presque ay saaga la def jëmale ci ay tijaan nañuy wasi faak nañuy tuddee yàlla ak kàddu ñaaw la leen jëmale bi loolu amee nag kuréelu tijaan yi fañ ko porté plainte moo tax takk deree jàpp nañ ko niki démb ndax fa wax ne oustaz Omar Sall moom dafa contre sëriñ si moo tax muy ñaaw yooyu jëmale ko ci tijaan yi comme nag tontu du forox oustaz Omar Sall tontu na ca l'observateur ah, yaaw seetal fa leen a wax ne man kàddu yooyu ma yëkkati fa am ñoo xam ne fañ ko amplifier maanaam fañ koo yokk ba pare génne ko ci contexte ba ma doon waxee maanaam fañ koo toxal yóbbu ko faneen waaye loolu ñu may tuumaal daraa ci amu du dëgg yéen a kaay bi ne ak lu mu ci mënti doon kilifa diine googu ñuy wax oustaz Omar Sall moom ma ca loxoy takk der ya fañ koy jàllale tëj ko kaso wala fañ koy mu ñibbi li ci kanam raw